liggéey sa far pour mu gën laa bëgg wala mu dem ba takk la aayul ñenn ñi ñoo ko jàpp mais ñenn ñi ñoom it d'accord ñu yéen gis ban point de vue ngeen ci am Ria ci nga bokk de. <laughs> ba àddinay baax daal nit da daan naturel. Hmm, indiwaat nga naturel. mais lu naturelul baaxul. Hmm, démb de nee ngeen. foofu day naturel ñu reprendre la. non non non dëgg la. xam nga lan moo lay wan ne la lu naturelul baaxul te day day. rejeté am na ñu bari ñoo xamante ne fu mu nekk nii fojete na leen fo euh, fojete nañ leen. Mhm. ndax ñàkk naturel. Mhm. xef ange. Mhm. greffage. Eh, yaay yooyu yooyu day rafetal day rafetal mais mais naturelul naturelul mais ba ci biir néegu sëy am na ci yoo xamante ne naturelul. mais ñuy naturel. yow ki ngay liggéey. yaa tey tegoo say xef moo tax ngay wax wax ay xefi jàmm yow yow yaa mos a gis lu xef. tey tegul xef di ma kalaas ma nag di yaay yëpp mën naa ne. waaw ba suba suba ñu xooli baax. Ah. waaw baax na yéen wax leen man suba ñu xooli baax macha allah li ma bëgg daal mooy gis nga caat. Mhm. lu naturelul baaxul te du mais ñu ñëw ci sëriñ euh, Tobi. man man man nangu naa nga dem si sëriñ. Mhm. ut ay ñaan. Mhm. pour ñu jubboole la ak sa jëkkër. pour mu musal la si. pexe noon si ñii di yàq ak nog-nog comme ñu mhm. koy waxee mhm. nangu naa tamit boo amee place liggéeyukaay ñoo dem ut si ñaan mhm. pour avancer di dem ci kanam mais nanguwuma liggéey nit pour mu nopp la amul benn sens parce que des fois bul bi day tourner de des fois nga dem si sëriñ di liggéey kenn loo liggéey si yow lay këpp waaw eh, mi ngi fi am pagaay loo liggéey rek mu këpp ci yow bu dee nob yow yaa koy gën a nopp am na ñoo xam ne dañoo jóg bu yàgg aimé ah d'accord aimé kon amee nga dem si yi liggéey nit pour mu lii la ban sens daal yow xam nga même waa ji bu nekkee sa ginnaaw xam nga ni lii li nga defa tax mhm. loolu amul sens bi maanaam comme ni nga ko waxee démb boo la tegee loxo sax xamal ne sa xel bi mooy dem ci loolu fóon lañ koy waxee wala bisu mhm. ah nga danga may corriger. du ma ko wax de mag laa mm. mag laa léegi même booy fóon sax. Mm-hmm. booy foon sa jëkkër wala sa copain. Mm-hmm. xam nga ni yow sëriñ bi. Mm-hmm. lu mu la defaral moo tax nga koy moo tax mu lay foon. am na ñoo xam ne moom dañoo liggéey seen jëkkër ba seen jëkkër bu doon am million duñ ko am na dañ leen liggéey liggéey boo xam ne duñ comprendre. day dem si seen yow dama wut sa ñaan. macha allah dem si sëriñ te am na sëriñ yoo xam ne war dëgg fa yàlla jaruñu nekk sëriñ. ndax ay dóorkat lañ. Mhm. dañuy lekk sa xaalis ak. Mhm. da ngay dem ci sëriñ mu ne la saafara si ma la jox nga sangoo man sëriñ bu ma gën a wóolu mooy koo xam ne dangay dem mu ne la doo ma jox dara. parce que sëriñ bu aay du la laaj dërëm parce que lu mu yor yàlla moo ko may mm-hmm. te buy def day def te yàlla tax te du xool loo ko jox wala loo am wala loo amul mm-hmm. mais am na ñoo xam ne dañuy dem naan la ay un million wak deux cent mille ak mm-hmm. trois cent mille ak loolu noonu boo demoon seeraas jënd si benn xar yóbbu sa yaay laqal ko dibi kër gi wàcc ah wala nga jëndoo ko ay jasneer yi bari ah. am si ñaan ah. moo ko gën wax naa ko fii bari na ay jéeg yoo xamante ni seen i jabar seeni jëkkër ñu ngi leen di wutal wujju te dara waralu ko lu dul eh, maanaam toppatoo seen bopp rek talatuñ ko ndax dem ci sëriñ ndax bu fekkee ne bokk nga nat bokk nga tontine bokk nga ci lu ne te lenn lu ne dangaa war a joxe te yow sa dépense sax matu ko yaa ngi comprendre yaa ngi jéem a wut noo tëjee gémm ñu yi am na fi di tëj ay gémmiñ pour ñu bañ a wax ndax nga yow nga mën a nekk ci jàmm imaginel kooka ngay tëj gémmiñam bu dee moom mooy soutien dafa même doo ko lor doo ko lor ba dootul mën a défendre ci boppam bu loolu weesoo ñu ñëw ci am na keneen koo xamante ni ndeysaan mu ngi wuyoo ci turu Serigne Saliou Sikap la nekk mhm. nekk ku baax nee na ma caat feeg yaa ngi dem ci nit ki naan la maanaam lii ma lay liggéeyloo ci laa yor sama kër ci laa yor sama nangam jub na yàlla moo lay may boole la ak kooku nga war koo defal te yàlla rek tax te xam ne lépp li nga war a lijjanti yow mu jëm ci sa bopp yàlla dina la ko jox. Mm-hmm. ok bon léegi man xam nga fan laa bëgg a taxaw. ñëwal yaa ngi wax léegi <laughs> ne dañuy tëj gémmañu nit ñi. waaw lu raw loolu sax dañ koy def. fan yële paase. Mm-hmm. dañoo envoyé ay film yoo xam ne kooku ci armeer la nekk yor bëy yor puso ak wëñ. di di tëj gémmuñu bëy bi di ko nas di roj di nocci barke yonent bi bañ paree dañ koo suul teg ay dàll ak yeneen ak yeneen gasal na bëy bi ba pare waaw te day bëy bi deewul mbaa xam nga ne armeer yi léegi suulatuñ ci nit lu bari ah tam da ngay koy sulli sax dem def lu ñuy def mais mais bëy bi deewul non bëy bi deewul dara jotu ko c'est ça mi ngeeg nga jël puso àttana jël puso non dafa am ñoo xam ne du ñu nit. déedéet parce que mm-hmm. loolu. du yëf naa tamit euh, benn vidéo boo xam ne. kooku xam naa dafa liggéey waaja wala liggéey ku mu munti doon parce que xamuñu kan la mu dem suul ko fenn. Mm-hmm. ñooñu dañ doon euh, tabax foofu noonu ñu dindi ko sëf la woon. waaw ah, d'accord oh. ah mais jëlal guy gi ñu jëloon guy ga ñu tasoon guy ga. kooku xam naa dañ ko sëf waaja ba muy tabax këram. la ñëw di defar ba gis sëf ba. mu snap ko duggal ko ci internet bi ne xaw ma ko munti doon mais li dindi naa ko. mu yaay ay doom yu bari naawtal nañ leen ñu nekkoon seeni soutien de famille. yaay nekkatuñu seen kër. seen yaay ne ci jaaxle tiit dem nañ ci kii nu mu tuddati dem nañ tës dem nañ fu ne di def ay réclamation avider de recherche loolu lan moo ko waral. gis nga euh, dangay dem ci armeer caat ria mm-hmm. am na boo xam ne kooku day gas ba mu yàgg. ci boppu néew bi ci la fekk ñu am ku ñu xaatim mhm. dugal ko ci boppu néew mhm. mais am nañu bon nag mhm. am na ñoo xam ne bon nañu yées nañu yëccët nañu wax naa ko encore une fois parce que gis nga ki génn léegi li mu wax avant Pape Mbaye mm, nee na nañu wax ci goro yu bon yi am na ci ñoo xam ne ñooy tas seen sëyu doom yow sëy nga sa sëy mais bàyyi sa doom mu sëy sëyam mais dinaa sëy sama sëy ba pare sama doom du sëy sëyam teguwul fenn. macha allah bu doon sa doom xëj na gis nga ko ci situation bu naqari bu la neexee bu la neexee yow la mën nga xëcc sa doom indi. Mhm. mais kantaan ak sa doom mi ngi sëy ak ku góor ku ko bëgg teral ko te yàlla tax mais nag bàyyi ko mu sëy sëyam mais am na ci ñoo xam ne xam nga lu ñuy wax. Mhm. diw dama koy fase. yow da nga koo takki woon ba koy fase yaay góor ba koy fase. ci bon la bokk. Mhm. dafa am ñu bon. en tout cas may fàttali ne yéen a ngi ci seen émission boulevard du net 10 heures saa bu jotee dañuy yaatal sunu thème bi nga xamante ni tey yëkkati nañ ko jëmale ko ci maraboutage ak société sénégalaise euh, li tax nag ñu def prétexte boobu noonu c'est parce que dañoo gis ne jamono ji euh, taqar naa seen fi lool bu ñu demee ba Sénégal nit ñi nga xamante ne ñoo fi tëdd tey euh, maam Borom Touba comme ni ko yaay waxee maam élage Hadj Malick maam Kunta Ndiassane mm-hmm. ñeneen ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla mosuñoo def lu mm-hmm. mm-hmm. ngi dégg ay nit yu baax tëdd fee bu ñu mm. demee tey ba ne Sénégal bokk na ci pays bi nga xamante ni tey pour def lu ñaaw mara maraboutage sacrifice euh, yeneen ak yeneen yoo xam ah mi ngi noonu yëpp fii la gën a lee ñaayee ça ça pose problème waaw mu mel ne am na ku ne ci ligne bi yàgg loxo jàmbur yeeg tànku jàmbur yeeg dégg nga bëtu jàmbur waaw ak di leen def mongol ñu baax asalaamaaleykum allo allo yi asalaamaaleykum waaleykum salaam ziar naa leen bëgg naa leen di leen baalu ak di leen baal. baal nañ leen baal ñu ñun kay ñoo leen sonal. yàlla nañu yàlla boole baal te yàlla def ndimbalam ak suturaan ci yéen ñëpp. amiin amiin amiin amiin. wante yéen a ngi waxtaane te boo xamante ne daal te bu ma ragal la xam naa di leen. <laughs> jar na ragal nag moom. lu ma ragal lool. parce mm-hmm. mm-hmm. que gis nga àdduna. man damay njëkk a wax sama wax ne gisuma sëriñ bu gën sarax. dégg nga fonkatuñ ko. mais ak i saraxam. gisuma sëriñ bu gën sarax. Mm-hmm. mais ak i saraxam. Mm-hmm. Euh, bi ci des na ma tëb ko noonu may ko joodo moom mu yeggale nag ma ñëw ci diggante li ngeen doon wax tuuti mooy que ni sunguf mm-hmm. noob sa jëkkër parce que ki nga xamul. ba bañ dugg tuuti ci fan. Mm-hmm. parce que ki nga xamul ndax dina la takkam déet soo ko defalee ba sonal sa bopp wala mu sonal boppam doo ko bàyyi du la bàyyi. Mm-hmm. te du ko ci coono la. mais nga li bàyyi xel kër yi borom kër ku ci ba pare sokkoor nopp rek perte nga. Mm-hmm. benn. tudd xalima moo koy def. du sëriñ moo koy def xam nga dañu naan góor bu la xamul jànk nga ci moom. Mhm. première guddi ga ngeen di nekk yow ak sa borom kër. Mhm. ca moment boobu ngeen di nekk ci la ñuy góor. Mhm. ku ko xam baax na ku ko xamul baax na. ci juróom-ñaari fan yooyu ngay nekk sama sama mbokk làkkat yi xam nañu li may wax dañ lay booleeg sa kosu lam lay defar moo la koy defar. Mhm. kenn du jot ci yow tànk juróom-ñetti fan jot. sa mhm. lekk ak naan rek lay doon du leneen. Mhm. du lu ñuy bind di la ko jox nga koy lekk du lu ñuy bind di la ko jox nga koy naan. ñu bàyyi ci xel te gis nga li Xadi doon wax naan naturalité. mooy téye góor. nit la koy téye ci yow la koy bàyyi ci yow wallahi wal azim du xalima. tey su may wax ak xadi su ma bëggee xadi wan xadi dama ko bëgg su xadi gisee ma sama kanam naay ci moom mm-hmm. ma jege ko xet bu neex mm-hmm. jege ko dalal xelam mm-hmm. jege ko bégal ko jege ko supporté ko bu amul bu ñëwee wax ak man ma dalal xelam góor boobu du sëriñ moo koy jël Sénégal nag yaakaar nan tey su ma fixé cat wala ria fixé ba nu jàkkaarloo caat buy génn wala riyaa rek am na góor bu mu woon ah man de diw dafa jàkkaarloo man di ma fixé bindal ma lu ma sang. ñu mm-hmm. yaakaar ne mbir loolu la mais mbir mi wallaahi gis nga woy jóor yi. Mm-hmm. ku leen tee loo bëgg di baax. Mm-hmm. ak leer. bu la ci yàlla mayee yu baax jox leen ka di leen bett ñu di leen ñaanal la mën a faj seen soxla. wallaahi. la ca des bu la yàlla suturaalee ba yor lu bari togg sa añ bu baax mhm. dem ci daar nekk ay njaboot nekk mhm. yoo xamante ne ay moomin lañu yaay nekk fa bàyyi nekk fa nga changé seen lekk yu bët mhm. yàlla mën na laa suturaal wante am na ñoo xam bala ñoo saraxe sëriñ leen ko digal am na ñoo xam bu ñu baaxee seen jëkkër c'est parce que sëriñ nee na leen defal leen lii foofu ñu baax après yaakaar ni sëriñ ba boo demee adduna la ba sëriñ di la conditionné. Hmm. foo jëm sa àddina. xam billaahi. est ce que war nañoo nangu sëriñ bi ñu conditionné. déedéet. Mhm. du ma ni amul du ma nit gisuma ku ñuy sëriñ. Mhm. du ma ni du ma sangu ndox mu ñëw parce que ndox mu kenn laal ko. Mhm. mais wallaahi maa ngi leen di seedeel. sama bakkanu doom. su ma sangoo dara sama wéyjur bu jigéen ñoom. très bien mën sama yaram parce que dama leen a ragal. te des nit dina gàddu saagam dem ci nit koo xamante ni moom bu ñaanaloon boppam sax soxlam faj. wallaay dëgg parce que nit ka muy jëm moom moo ko gën a sedd moom miy def. moo ko gën a sell moom miy def. wallaahi dëgg la. bu ñu jël suñu àdduna tënk ko ci sëriñ parce que sëriñ a am léegi. Mhm. jamono ji li may wax ci net beeg lépp ñu baal ma bu làmb amee. Mhm. àdduna suñu borom bii nga ni yàlla bàyyi ma jiitu la ci ay ndaw. Mhm. ñoo xamante ni dañuy seet di gisaani. wax ma lu xew. deewoo daan suñu borom na def ca ay nitam ca ña am sutura la koy defal. Mhm. ñiy wax nii ni dañuy seet wallaahi am na ñoo xam bu ñu tuddee kilifa yee leen wax leen lii xew te duñu ko wax. wallaay dëgg xëyee def seen saraf jàpp bu ñu jàkkaarloog suñu borom. tey bégalaat. mbir mi wëy jur la mi ngi noonu macha allah am na solo. nekk leen ci jàmm jërëjëf kontaan nañ madame muy ku baax nag macha allah di di di joxe ay analyses yu pertinentes yu am solo. moom li muy wax rek dafa may fàttali sama maam benn jour daf ñu doon léebal tànxale mu ne. daa am ko mës a euh, mere jëkkër ji ñu xuloo parce que da koo taqal wujju riyaa mhm. bi mu ko taqalee wujju léegi nag mu daal di dem ci sëriñ ba ne ko mi ngi bëgg taqal ma wujju bëgg maa génne sama nga xam nga rek jigéen mu demee ci koy sosalaale de sosalaale jëkkër ji par la suite bi mu waxee loolu euh, sëriñ ba nekk amul benn problème indil ma de cent mille ak dix ginaar mu ne ko man kay jaral na ma jaay sama mbubb sama lépp daal ko koy indil sëriñ ba compté deux cent mille yi ba mu mat mu def ko chaque jour dix mille ne ko ginaar yi chaque jour saa boo xëyee toggal ba bu set ba mu neex jënd sa boisson ak sa njarum soow avant avant ginaar yi di jeex juboo nañu maanaam cela veut dire am na loo xamante ni tey moom bu doon dafa soxal sax wala mu am ne ne nu mu gisee wala muy sëriñu client dina ko digal leen lekk xaalis ba te la mu koy defal du baax mais cela veut dire jàmm ji ngay indiwaat ah loolu tamit am na. am na ñoo xam ne. Mhm. mënuñu dund sans sëriñ. mais loolu du faiblesse yow Ria. mënoo dund sans sëriñ. sans sëriñ dem sëriñ defaral la loolu du faiblesse. mais nga foog ne sëriñ bi liggéeyu leen ba lu ñu am rek war ko mën a jox sëriñ. déedéet dafa am ñoo xamante ne sëriñ moo nekk ci seen deret. nee naa la bu ñuy <laughs> fóot bu ñuy fóot sotti nañ ci saafara. bu ñuy paase. Ah. wissee nañu saafara. ay waaw bu ñuy togg ah. saafara. bu ñuy naan saafara bu ñuy tëdd saafara ñooñu moom dañoo def dañoo feebar xam nga ak passé yow bàyyi ma waay ak ah, xay bàyyi ma am na nee naa la am na ci yoo xam ne mbaa xam nga ne léegi jeeg bu banque rek ne gisaanikat laa waaw ne damay seet waaw dem ca marché ba jënd say petaaw waaw daal di yëy sa goro buusu ci dugal ci duus bu xëyee fanaan boo xëyee génn ne waxal ma ko sama gars dugg ci internet bi def ci sab layu teg sa pétaaw prétexte la nag ma waxaat la ko prostitution déguisée pour xale yi ñëw di la seet si nga leen di wutalaale aussi ñoo leen di link bu baax xam nga li ci réew mi dañ koy waxtaanee moo tax ñu indi émission bi waaw dañuy laajte jasineer ñoom ñuy seet ah mais yow ku ci banque laajte xar dañuy laajte seenu or dañuy laajte ay dàll dañuy laaj saak xam nga lan moo wax naa ko sànq wax nga ko muy benn deal ak benn link bu am ndax tey par exemple man xam naa la tey ca meer ba ñu jëm euh, sama xarit la ma daal di la fay jiitu wax la lépp sa problème. wala ma woo ko téléphone sax. wax ko yaa ba pare ne la man duma dem. duma ci feeñ ndax bëggul ñuy. am na si sax demaale. yaa ngi dégg wala suñu demee ba ci biir ma génn ci biti xaar la. waaw nga génn sa bopp nga génn naan kii li ma waxal. lum la laaj nga jox ko ko. Mhm. loolu mooy tax ñu am accès ci information yi nga am bu ñu yëngalee du ñu gis dara ne la waaw kii parce que maanaam man jiitu naa la fa am naa yu ma wax tam bu ñëwee lépp day nuroo. day nuroo day tolloo. noonu lay demee looloo fi am. <laughs> day nuroo day tolloo mën na ko looloo fi am. loolu dëkk bi toj day nuroo day tolloo. Mm. maanaam courrier courrier mara yi dafee bari. Mm, mm. dóorkat yi dafee bari waaye nag am na ñu am. am na ñu mën. te am na ñu fi yàlla teg am na ñoo xam ne seeni xalima du ñu laal suuf. xam nga lu tax seeni xalima duñu laal suuf. te sëriñ bu ma dëgg du la defal lu bon. parce que dañ koy sellal. ndax kay soo ñëwee wax ko dina wëlbati sa xel waxtaan ak yow mel na kuy def ak yow euh, développement personnel. mais nag sa copain bu dee bëgg nga ko mu bëgg la war nga ko mën a ñaanlu mu taq la naturellement. xam nga ñaanlu jigéen nag original bi mooy lan set del sangu ba di xeeñ lu neex. Ah, mel ni sama rakk ji. di defar wax naa ko fi keroog. Mm-hmm. jeeg ji nañuy pomp njëgënaay yi. Mm-hmm. nga xam ne bu ci sa jëkkër tëddee mbaa sa dina xam ne lii di nga marqué kii marqué na empreinte di borosal seen bopp seen i borom kër di borosal seen bopp seen i gémmiñ. seen i borom kër même seen bopp. Mm-hmm. balaa nga naan naam ne fa ba pare waxuma la dara mais góor ñu ci bari fu mu nekk nii seeni i seen seen i yàqu na seeni i darabu jabar. xam nga lu ko yàq hmm. seeni tëstal dañuy lonk rek ni àjjikaayu màngo góor da nga koy bombal ay tànkam hmm, hmm, di ko sang ba mu set di ko defaral nettoyage général mais yow général généraloo bay bay wutub général lii na moo wax la jamono bii nii yenn sëy yëpp naturel yu ci bari des benn mariage nga lan moo am na yu jigéen yu bari bari bari bari dañuy dem fii ba ajag njak pour ay sangat pour sëf seen fan pour mu takk leen. Tëria baal ma dugalal la ci benn dégg naa il suffit ki ñu bëgg ñu xam turam rek dañuy dem ba. turam turu yaayam. laaj yow turu yaayam yow waa ji yaay ñëw doxaan leen naturellement. takk leen sax ñoom ñoo lay doxaan. déedéet bu ñu defee loolu dañuy mm-hmm. xam def nañ dañuy toog jàpp seen ñàmbur. déggoo ma de yaa xam na li sëy yu bari bari bari laa wax milieu bii nii nii nii nii nii showbiz bi sax mm-hmm. laay wax. Mm-hmm. sëy yu bari yoo xam ne du naturel. te xale bu góor bu am situation. ñu dañuy dem man ñëpp laa fi nekkal mais xale bu góor bu am situation la ñuy bañ a gis. dañ lay dem liggéeyi xale jigéen ñi dañ lay dem liggéeyi. loo am dox te noonu la amee ci góor ñi te dañuy xam ne kii xale yi dañ koy topp parce que am na yenn ñoo xam ne booy génn ñoom yow da lay leer ni que sa xel am nañ fukki gel yoo xam ne wala dix gel ñu ngi daw seen ginnaaw parce que yoon na ko mën na ko damay bañ mu rëcc ma nag bu ma rëccee dara du baax na mun na ma fajal mun na ma génnee sama situation bu ma nekk mu mu nekk footballeur wala mu nekk ku mu munti doon wala mu nekk woykat dama koy liggéey mu ñëw takk ma. beneen wax am na sëy yu bari yoo xam ne si bii naturelul de. mi nga noonu beneen waxande bu ñu bëgg ubbi yaay te mu nekk ab laaj laaj lay doon waaye laaj boobu damay bàyyi ba ñu ñëw mm. fàttali ma ko bala ma ko fàtte ñu jël gi ci ligne bi <laughs> asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum ah, salaam yaram bi.